asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk yu tedd yi ñuy jàkkaar lool ñu ngi leen di nuyu di leen balu xaq du ñaan sun borom subhaanahu wa taala yàlla na boole jéggal zaahiran wa baatinan di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yépp waaye di jiital ci nuyu bu alxalifatul aam mun Muntaqa Mbakke di ñaan suñ borom subhaanahu wa mu yàggal ko fi lool te may ko wér ak mbooleem kalifa généro yi nekk ci réew mi yépp ginnaaw loolu bokk yi tomb bi nga xam ne walla ñaari tomb yi nga xam ne bëgg nañ koo waxtaane ak yéen muy li ñuy wax a tawxid wa taqwa allah wéetal sunu boroom ak lan mooy ragal sunu borom sunu boroom mooy ki nga xam ne wala ab jullit mooy ki nga xam ne dafa war a def sunu borom subhanahu wa taala muy kenn ku wéet ci nguuram gi wala muy koo xam ne mooy ki wéet ci jëmmam ji wala nga ne mooy ki wéet ci meloom yi wala nga ne mooy ki wéet ci jëfam yi loolu kenn du ko ci fekk kook kon jullit bu nekk war naa góorgóorlu ba xam sunu borom moomu mooy kan ndax moom kat sàkku na ci ñun ñu xam mooy kan moo tax mu ne woon wa ilahukum ilahun waxid faalam annahu la ilaha illa allah dafa sàkku ci ñun ñu xam moom mooy kan mu ne dama bëgg ngeen xam ne sun boroom moomu den bind kenn la koo xam ne moom dong moo nguuram ga te amul benn buur bu nuy jaamu jaamu ga njariñ di ci am ñàkk gaa jaamu lor du ci lu dul sunu borom moomu moo tax mu ne faalam kon nag loolu day aajowoo am xam-xam bu lay xamal sunu borom te boo demee ci alquranul karim da fa gis aayaat yu bari yoo xam ne day wane wéetal gunu war a wéetal suñu borom subhanahu wa ak lislaam makaan mu kawe bi mu jox tawxiid boobu wala wéetal suñu borom googu ndax tawxiid mooy al asaas mooy fondement bi nga xam ne mooy la jëf yi jullit bi di tegu ngir jëf ji war a nekk lu nangu wala jëf ju baax ndax loo mën a def ci jëf yu baax ci santaane sunu borom yi subhaanahu wa taala soo mataloon lépp te manqué li ñuy wax tawxiid te mooy asaas bi jëf yooyu war a tegu su matut li ngay jëf yépp neen lay doon kon Euh, xam-xam boobu nga war a xam ngir xam ci suñu borom nee na mooy xam-xam bi nga xam ni moom la doom aadama bi war a jeexal dundam gépp di ko sàkk koo xam ngir mën a xam suñu borom kon loolu lu am solo loo xam ne jar na nga jeexal sa dund ci ko di ko jàng ngir xam sa borom kon loolu lu am solo lu mat a ràññee la moo tax sayxuna alqadim radiallahu anhu doon wax ni wa afdalu alulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lilqurani suma alxadisu qaalahu addaymaani mu ne xam-xam bi jëm bi gën ci xam-xam yi mooy xam boo xam ne moo lay xamal ni ngay wéetale sunu borom subhanahu wa taala te waxoon na ne wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadati saadati ajal nee na maa ngi lay xamal ne sàkku xam ak jafe ginnaaw bi nga xamee li nga xam nee na mooy ñaari moyen yi nga xam ne moo la mën a eggale ci texe kon mun ta ñàkk mos nga gëstu bu baax ba xam li ngay xam lépp fan lay tege moo tax sëñ bi ne li xam-xam bi gën ci xam-xam yi yëpp nee na mooy xam-xam bi lay xamal li ngay wéetale suñu borom subhanahu wa taala ba xam li mayoo nga jox ko ko mu waxaat ci beneen xadiisu xudsi ne faarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni mu ne na ngeen ma xam njëkk ngeen may jaamu te nee na wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa li yaabuduun bàyyiwu ma fi nit wala andiwu fi nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma mu ne boo nangoo jaamu nag alhamdulillah waaye dafa bëgg nga teg ko ci asaas bi mooy tawxid bi kon dafa bëgg ñu jiital xam walla jéem a xam sunu borom ba xam gëdd bi mu yeyoo ci ñun waaye sunu borom nan lañ koy xame ndax dañ naan la ma nga nga séen ko ma nga ne mooy ku njool ke wala mooy ku gàtt ke wala mooy mu xees ke way mooy ku ñuul ke déedéet suñu borom duñ ko xamee noonu nan lañ koy xamee xanaa li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tafakkaru fi xalqillah wala tufakkiru fi zaati wallahu taala waxidun la sharika la mu ne soo bëggee xam yàlla da ngay xalaat ci mbindeefam yi lim bind te bañ a xalaat ci jëmm ji lim bind bokk na ci li ci gën a am solo mooy doomu aadama kenn ku nekk mën naa xool boppam rek yéemu waaye yeneen lim bind géej géeg suuf seek asamaan seek ah, biddiw yeeg weer yeeg jant yéeg njanaaw yeeg yooyu yëpp ay mbindeef lañ yoo xam ne soo ci xoolee yàlla gis ko ca maanaam soo ci xool yàlla gis ko ca mooy lii di mbindeef moo xam ne xam nañ ne doo loxol doomu aadama dugg ci te luñ bind la ka ko bind kookee ma yàlla suñ boroom moom nag nee na kenn la koo xam ne amul kenn waru koo bokkaale amul tam kum suseeteel nguuram gi moo xam ci kaw asamaan la moo xam ci kaw suuf la moo xam ci li munta wax la ay di bàyyi ma wala li nga xam ne da koo def muy ay jamaadaat walla mu bind ko muy ay doomu aadama nee na loolu bëggu cee bokk kenn société boobu bëgg ko bokk kenn kenn associé ci suñu borom subhanahu wa moom rek moo ko def kenn fekk ku ca moo tax ba mu ko defee ba noppi lépp di njariñ mu doomu aadama bindu doomu aadama waaye nag bindaat lépp lu amal njariñ doomu aadama tegaat ko ci loxo doomu aadama kon suñ boroom moom war ngaa xam mooy kan mooy ki nga xam ni moo fi jiitu lépp te kum jiitu gi mu fi jiitu mu noo fii la tàmbale waaye man nga ni itam moo fi maanaam jiitu lépp te du jeex mukk te xamoo fu mu commencé te amul fu mu yem laa awala lahu abadiya abadiyun laa nihaayata amul fu yam te itam bindul boppam bul xalaat ne doomu aadama moom xam naa ne bindut yàlla kooku moom ñëpp d'accord nañ ci amul menn mbindeef muy muy dox yorug ruu walla loolay ñàkk yor ruu te du loola suñu borom moo ko bind boo nangoo loolu yi nag bu sa xalaat yóbbu ci ndax kon suñu borom moo bind boppam déedéet loolu itam bokk ci li nga wër suñu borom bindul boppam walla walam yaxluqu ahad kenn bind ko te suñ boromam du yaram buñ mën a laal ne mu ngi nii ak sa loxo wala nga di ko gis walla nga ne mi ngi bokk ci xeet sàngam kon kooku mu yàlla kon jëmmam ji boo ci dee xalaat xalaat yu xóot wala yaasu bu laa mën na la ndi sax ci kéefr waaye dangay xool li mu bind rek ngay xalaat ca loola xam ne kii amal lii kooko yàlla donte tegoo ko bët moo tax Seex Ahmadu Bamba radiyallaahu doon wax naan fa kullu ma yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi daaka rabbina al ahad nee na lépp lu toq ci sa biir xol nga di ko xalaatee jëmmi sunu boroom ja ne nii la mara mel nee na na nga xam ne wuute nag li ngay xalaat kon sunu boroom bu ci xootal sa xalaat waaye xóotalal sa xalaat ci si lu li sunu borom subhaanahu wa taala bind kon am nay melo yoo xam ne moom sunu borom subhanahu wa taala ci moom dong la yàlla yooyu melo ci moom dong koy fekk mooy ne moom de am na maanaam ku existé la moom sunu borom boo ko gisit te moom ku ñaan yàlla moom am na moo fi jiitu lépp itam ak amam moo jiitu lépp lu fi am ndax ci laneen lu fi am lu ne ginnaaw bi mu amee ba noppi la mu amal ko nam ko neexale waaye tam dafiy des ba faw li mu amal lépp dina dem ba raaf doomu aadama yi jóge ci kaw suuf ñëpp faatu suñ borom dong taxaw nag yëkkati loxoom ne man mooy yàlla laaj boppam te kenn du tontu fekk lépp raaf na ñu door a dund dekkalaat bindee fi suñ borom dafa wuuteeg mbindeef yi maanaam bul am menn mbindeef mooy xool mu am nu mel lu tax nga jàpp ni ndax yàlla loo na la war a mel suñ borom moomu dafa wéetoo ci kenn du ñaar du ñett du ñeent moom dong la loolu itam bokk na ci li nga gëm suñ borom moom itam mooy ki nga xam ne moo mënal boppam lépp soxlawul ci kenn lu mu koy defal lu mu tële moom lu mu bëgg ci boppam lu mu aajo ci kenn ku ko defal suñ borom moom itam bokk na ci melam ne moo xam lépp waaye kuy dund la du faatu mukk kuy dégg la du tox mukk waaye kuy gis la kuy wax la alquranul karim mooy wax sunu borom subhanahu wa taala comme ni mu amee ay yeneen melo yoo xam ni dafa jomb ci sunu borom subhanahu wa muy mel noonu mooy ñàkk am dem ba ci yàgg ñu ne yàlla amatut loolu mënul nekk wala yàlla dafa sosu kooku mënul nekk yàlla susuwul ndax luy sosu daa foy fooy commencé daa am fooy yem te amul kuma fu commencé amul fu mu yem alfana dem ba jeex tàkk ñu ne nekkatu fi amul ci suñu boroom waaye yemoo kenn itam amul ci sunu boroom wala aajowoo kenn wala muy limu comme ni ñu ko waxee léegi naan benn yaar benn yàlla wala ñaar wala ñett wala muy lot yooyu yëpp wala tëx lu wala gumba wala faatu wala réer yooyu yëpp jàmm na suñu borom subhanahu wa taala kon haadihi sifaat barahinun tadullu ala sixatiha wa tawaajudiha wa ann kulla sunaatin tadullu ala saani mu ne melo yi ñu la wax yëpp ay layla yoo xam ne day tegtale wérug amuk sunu boroom te lépp loo gis mu am loola day tegtale ne am na ku ko def te kooko mooy sunu borom subhanahu wa taala eh, sàng bi ma waxee baytu woowu mu ne wa afdalu lulumi bilitlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi ca masaalikul jinaan boo demee def caa teg ne wa baadahu tafsiru lilqur'ani summa alxadisu qaalahu daymaani am lu ma ci bëggoon a commentaire ba far ko mooy dafa bokkoon ci ay ndigaleem moom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu te ay digaleem bu ñu ko waxee mooy alquran mooy sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam alquran di message boo xam ne ni dafa ñëw ci jullit yi message nañ kuñ ko yónnee wala lettre kuñ ko yónnee doo ko fa toog teg rek waaye dangay ngay jéem a xamle lettre bi wax te loolu nag bu ñu seetloo. ah ñoom sëñ xaadim ñi ñi war na ñoo gën a leeral ci loolu ndax ginnaaw sëñ bi dafa bokkoon ci ndigalam ginnaaw nee na xam-xam bi gën mooy tawhid ba noppi nga teg ci tafsirul quran te rarement ngiy gis ñu suñu jàkka yi nga dem ci fekk ci ñu cay def tafsir léeg nga dégg ñu naan la Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu daf doon tare kuy firi al quran daana wax ne ku koy foo déggee ñu koy firi jar na di sol dalli yàqu loolu mu daanañ ko dégg waaye lañ doon dégg ak li mu bind lan moo gën a wér kon nit ñi dañoo war a xam alquran parce que message la dañoo war a xam li muy wax parce que bari ñoo xam ñi ngi koy tiim di ko jàng dëgg la fonk nañ ko lool jàng nañ ko mokkal nañ ko bind nañ ko waaye xëy na message boobu di dugg ci ñoom tax na foofu lañu ci yem jéemu ñu xam ne muy tekki te loolu nag jàpp naa ne défi boo xam ne nii wax dëgg yàlla boroom xam-xam ñi war nañu cee leeral lu tax daal tafsir moom bokkul ci li nga xam ne lu baa boog ñu néew taxawuma ko waaye ci jàkka yi nga xam ne ah tey bii bokk ci moom mi ngi door a ñëw xëy na programme loolu bokk na ci wala bokk ci xaw ma ko mais jàkka yu bari duñ ko fa def te dama jàpp na jaadu na ñuy bëggee wéyal ndigalu Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu mooy ñuy tafsir alquran xëy na tafsir ci kiñ koy bañ mooy koo xam ne dafa jël téere bi te ay jumtukaayam matul ndax alquran nag ah da nga war a dégg grammaire da nga xam balaaxa da nga war a xam maani da nga war a xam lépp dool da nga war a dégg fiq ndax yooyu yëpp saa yoo tàbbee ci biir da ngay dajeeg moom te sooy dajeek moom mënoo ko tëb kon li ñu bëgg ci ki koy def mooy mu dajale jumtukaay yaakaar naa loolu la ñu war a loolu la jàpp naa ne la ñu war a wax waaye bëgg na teg fii ne kenn du ko tafsir moom jàpp naa ne loolu boo ku tëg lii wa baxdu tafsiru wa baadahu tafsiru lil qurani summa alxadisu qaaluhu daymaan bi gën na mooy tawxid bi ci des mooy tafsirul quranul karim bi ci des mooy nga jéem a xam ahadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jaadu woon na buñ xamee lan mooy tawxid ba noppi jàkka joo dem war naa fekk mu mufassir boo xam ne yu fassirul quranul karim wala nga fekk ca koo xam ne nii xam-xamam xóot na ci wàllu hadis mu ñuy tekkal xadis yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waaye nag kenn bañ cee dugg dugg nag bëgg àdduna wala bëgg tafsir rek waaye jumtukaay yi ñu soxla pour nga am ko mën koo tafsir ah, amu ko te boo xoolee fi ñi fi tafsir sax jumtukaay yooyu amuñu ko dañoo fekk kay ñoo xam ne amoon nañ seeni jumtukaay def ay tafasir yu am solo xam ne borom i xam-xam la yoo xam ne ni monde bépp nangu nañ ne borom i xam-xam lañ ñu tekki alquran ñay góorgóorlu ci tafsir di wëlbatiwaat loola di ko joxewaat xëy na sëñ bi lam doon aaye moom mooy ki nga xam ne dafa jug boppam am xalaatu boppam di firil boppam te jumtukaay yi nekkul ci moom waaye nag lu ñu war a lu ñu war a lu ñu war a di di di di di def kon ñu dem ci an nuxta sànni muy a taqwa يقول المولى تبارك وتعالى وقوله الحق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون suñ borom de mi ngi ñuy digal ñun jullit ñi ne yéen ñi gëm yàlla mu ne am mu ne ragal leen yàlla ragal yàlla nag mooy imtisaalul awaamir wajtinaabu nawaahi da ngay topp li la yàlla digal bàyyi lim la tere loolu mooy taqwa mu nuy moytundikoo nag ñuy dajeek moom te fekk taqwa boobu amu fa moo tax ca mujj mu ne bu leen faatu mukk te nekk leen ay jullit tab jullit nag wax na la ko léegi ne la mooy koo xam ne nii ginnaaw bi mu gëmee yàlla dafa war a góor góorgóorlu ci lu koy may taqwa lépp loo xam ne ndigal suñu boroom la nga def ci sa kem kàttan waaye la muy aaye moom ñu bañ la caa gis su ndigal yi mun tamatit lañ lay aaye moom ñu bañ la caa gis baa boo juumee ba tàbbu ci nga gaaw dellu ci sa borom subhanahu wa taala ngir mu jéggale loolu mu del waxaat ne yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida ay yéen nit ñi te ngeen a ragal yàlla mi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan muy aadam suñ boroom moomu de bu ñu xamoon kattanam ak dooleem ak lim sañ a def mu bind la ba noppi tegal la yoon wi mu bëgg ca jaar moytundoo la fi mu bañ ko fajaar ba noppi dimbale la ne lii laa bëgg xam nga kooku moom bëgg na la xett daf laa bind ba noppi ne la lii laa bëgg nga def ko lii laa bëgg nga ba soo defee lii texe waaye soo defee lii texe di kon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dox na annaasu iyaalullah maanaam nit ñi njabootuk suñu borom lañ kon suñu borom wane na bëgg na njabootam mu dellu wax ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida kon taqwa allah dafay feeñ ci domaine yu bari soo dee jëf mu ne ragalal yàlla soo dee jëf leen technique mu ne la ragalal yàlla soo dee wax mu ne ragalal yàlla kon ci faset yu bari soo fa demee rek fekk na suñu borom jàjj la ba ne la boo dee def lii nang ci na ànd ragal yàlla moo tax mu ne na ragal yàlla tey wax wax ju jub wax ju jub wax ju sell wax ju dut gaañ kenn wax boo xam ne nii bu rafet lay doon kon loolu itam bokk na ci ndigal yi muy boo xasee bay wax rek nga fexe wax bi nekk wax bu yiw comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut koo gëm ne daal bis penc am na nit ñi dañ faatu xëy dekkiwaat ci benn pakk suñ borom wara a lijjanti seen mbir nee na bis boobu ku gëm ne am na saa yoo waxate waxal yiw ta noppi wax yi nag léegi li ci yiwe di bari na lool moo xam ñooy wax ca rajo la moo xam ñooy wax ca télé la ñii yiw daal yiw nañ ci waaye ñi ci yiwe di itam yiwe di nañ ci léegi nga dégg wax yoo xam ne yiwe di nga jéggi na dayo kon nag suñ borom sàkku na ci ñun ñu di njabootam bokk na ci lim bëgg ne na saa yooy wax waxal wax ju yiw waaye wax ju jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqillaha xaysuma kunt wa atbici sayiata xasana tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuliqin xasan nee na ragalal yàlla foo mën a ne soo wéetee ragalal yàlla soo wétli koo ragalal yàlla ndax yàlla moom mi ngi teew fépp boo duggoon fa gën a ruq fermé ko itam moom mi ngi lay gis laa taqsoo sinatu wala naw koo xam ne du gëmmentu du nelaw te mi ngi teew fépp kon it deel def lu baax rek moo tax mu ne foo mën a nekk bu fa boo fa nekkut ak kenn itam yàlla moom ma nga fa moo tax mu ne foo mën a nekk rek na nga ànd ak ragal yàlla bu ne ñu may séen wala su ma waxee ñu dégg ko wala su ma defee nangam ñu gis ma waaye ki nga war a ragal mu gis la wala mu dégg la kooku yàlla la war a doon waaye warta doon doomu aadama yi kon moo tax mu ne wa atbii sayiata alxasana soo juumee nag ba wax lu juunu wala nga juum ba wax da def lu defewut nee na gaawal teg ci lu rafet ndax dina far lu ñaaw li nga waxoon wala nga defoon ko mu teg ci nag wax xaaliqi naas bi xuliqi naasan waaye nag nit ñi ngay àndal te dëkk ak ñoom mënoo ànd kenn ku du doomu aadama doomu aadama moom doomu aadama dong la mën a àndal mënoo ànd ak bàyyi ma yi mënoo leen te mënoo ñàkk ànd kenn nag mënoo ñàkk a wax ak kenn mënoo ñàkk jëflante kenn kon jëflante boobu ak waxante boobu ak dëkkin woowu nee na moom la lay ñaan mu rafet maanaam nga yor ko bu rafet boo xam ne danga koy jikkowoo ci nit ñi ngir buñ la delloo loolu yow itam nga bég mu ne nañ xam ne ragal yàlla de dafa am meññet yu bari yoo xam ne ni moom meññet moomu mën nga ko watt fii ci àdduna am meññet yoo xam ne nii yaa ngi koy wattee euh, ëllëg yowmal qiyaama am yoo xam ni day gaaw a ñëw ñor nga jëfandikoo ci àdduna am yoo xam ni alaaxira lay doon mu ne ba tey ci ragal yàlla googu la lay wax suñ borom subhanahu wa taala bi mu ni digal koor ca mujj ga daf noo xamal ne li ci mën a jóge ci jëf jooju mooy taqwallah yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun kon résultat woor te mooy nga woor bañ a lekk bañ a naan bañ a def lenn loo xam ne la loola boo ko defee dañ naan koor gi baaxut mu ne loola lam lay indil mooy ragal suñu borom subhanahu wa mu dellu wax ne moom suñu borom subhanahu wa taala ayat kasira yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun ay yéen doomu aadama yi ragal leen yàlla yàlla mi nga xam ne moo leen bind bind ña leen fi jiitu woon loolu lépp ngir ngeen am taqwallah maanaam jaamu gi ngay def ak sa xel mi ngay yóbbu ci ñi la fi jiitu woon suñ borom bind leen ak ñii mu bind tey li muy sàkk ci ñoom ñëpp mooy ñu xam mooy kan ba mën ko jox gëdd gi nga xam ne moom la yooyu moom suñu borom subhanahu wa taala sun sëriñ si Ahmadu Bamba dellu waxaat ne iz akramul ibaadi inda allahi aktharuhum taqwan bila ishtibaahi nee na jaami yàlla yi gën a tedd fa sunu borom subhanahu wa taala mooy ñi ko gën a ragal te nee na loolu ma wax lënt amu ci ndax bu dem ci alquran nee na inna akramakum inda allahi atqaakum sunu borom moom ka gën a tedd ci moom nee na mooy ki ma gën a ragal ñun nag doomu aadama dafa jël aaya boobu moom def safaan bi te ko waxe ñu ne ay di buuri sarax sunu boroom xoolul juddu sunu boroom xoolul sant sunu boroom daf laa bind nga nekkub jaam ba nga nangoone jaam nga mu ne la lii laa bëgg boo ca jaaree di sama waay boo ca jaar doo soon sama waay toppatoowul fi nga juddoo wala ni nga sant wala xeet wa nga bokk bokk ca te defal def ci xeet wi lu kenn deful nga am ci yàlla lu kenn amut ca moom te kooku doy nañ ci misaal mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci famille la bokk am ndey ak baay am am fu mu jóge mu mel ne dafa dem di dem ba ci yàgg rek am kenn koo xam ni rek mu ne pël xaw a mel ne koy fancé ña jiite woon nekk fii xaw mel ne dafa jiital ñu topp ci kanam kon loolu jëf la jëf rek la doomu aadama bi mën a def defal ko yàlla ba yàlla loola saf ko mu teg la ca kaw waaye foo mën a bokk ak noo mën a sant boo defarut yàlla li bëgg ka koy defal la mu bëgg mu jox ko moom la mu bëgg kon ñuy xàmmee loolu inna akramakum indallahi atqaakum ab jullit nag dafa war a gën a gëm yàlla ci lim wax ka ci li doomu aadama di wax bu la doomu aadama waxee natt ko ci li yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa su dëppoog loolu nga xam ne waxi yàlla moo gën a wér lépp wax yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a wér lépp waaye su yàlla waxee yonent bi wax ma wax sag ñàkk a fayda ak sag yóbbu la ci li ngay jéem a gëm li ma wax man di fi bàyyi yàlla ñàkk fayda mënut a passé loolu te yàlla li mu wax du deñ inna allah la yuxlifu l-miiaad mu ne ragal yàlla nag lan la mën a jox ki ko ragal maanaam wilaayatullahi lil muttaqiin yàlla féetewoo gi muy féetewoo ak ñi ko ragal maanaam ñi nekkee ay gaayam ginnaaw ba nga defee ay ndigalam bàyyi ay tereem ba am cër ci moom xam ne dañ naan ñii mooy almuttaquun mooy ñi ragal yàlla yàlla na ñooñu nag ñoom laa féetewoo loolu lan la lan lan loolu boobu résultat lan la ci mën a am mooy innahum lan yugnoo anka min allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliyaa'u ba'd wallahu waliyul muttaqin suñ borom nee na kenn ku la mën a jariñ ku dul yàlla waaye kenn ku la mën a lor ku yàlla amul ba la nuru la nit di def wala mu wax ko muy nuru lor day fekk suñu borom rek moo ànd ca loola